contexte maladie feebar bi ñuy wax Covid 19 bi mu dajal c' était pas évident mais malgré ça booy jàmbaar lan ñëw nañu di jàng professeur aussi ñëw nañu di jàngale bu topp di dundale ñu jàng jàng jàng ba examen bi indi nii. donc résultats yi ni ko amee nii ah ci ñeent fukk ak juróom ñoo ngi doon amoon ci santé bi fukki yi jaar nañu débis ñaar fukk ak ñaar yi ñooy waaj a def deuxième tour 22 incha allah bu yàlla defee jàmm ñoom ñëpp boole ko at mi dinañ ci am ay pourcentage boo xam ne dina ëpp juróom fukki pour cent donc njàng mi daal vraiment man daal maa ngi sant li may sant mooy sant naa professeur yi jàngal sant naa aussi élèves yi nga xam ñoo jàng nangoo jàng ci dégg conseil aussi ni ngeen ko doon conseillé sant administration nga xam ñoo jàpp pousse élèves ba jàng ndax contexte feebar dafa xaw a doy waar ñu ngi naan feebar bi ñu raxati ni dolli taw bi ñëw ak inondation yi si cause feebar ba taw beeg yëpp bu jàppee élève jàmbaloon de ñooñu aussi ñi nga xam ne leen ajourné ah examen loolu la ñii am ñi ñàkk joo ñuy jooy ñii dee loolu moom ci lañ ko fekk ci lañ koy bàyyi waaye nag ñu ngi gën a góorgóorlu bu déwénee ñu ñëwaat defaat terminal parce que on sait jamais yéen a ko def trois fois terminal quatre fois dogat bi donc yàlla daal mooy dogal mooy maye kon nag ñun muñ ñëw déwén ñëw jàngaat takkaat ndigg li bu baax a baax baax te ñaan yàlla mbas mi dem ci ba faw ba déwén ñu nekk dans de bonnes conditions de travail jàll incha allah ba yàlla def li ñu def ñu jëm seen yoon. l'ensemble c'est vraiment acceptable vraiment ci contexte bi comme ni nga ko waxee xalaat naa ni vraiment bu fekkee tendance bi nii la continuer vraiment ci deuxième tour bi danañ am résultat yu baax yu mus a am. vraiment kontaan nañ ci trop organisation bi rafet na euh, li ñu yaakaaroon daal vraiment am na lu bëri loo xam ne vraiment euh, suñu yaakaar daal tasul. Euh, mention yi bëri na vraiment surtout au sein de Fallou Galas comme ni ñu ko daan defee chaque année bii année nag moom wax dëgg yàlla macha allah dañuy ñaan daal li des daal vraiment cat ban ci dugg daal. mu terminé jàmm ñu am résultat yu baax xale yi itam vraiment ñi nga xam ne ñii vraiment yàlla def na amuñu itam euh, noonu la examen ñëpp mënuñoo amandoo buñ sañoon am cent pour cent. mais comme vraiment ñu ngi gravité romb nañ cinquante pour cent yi vraiment euh, dañuy ñaan yàlla euh, ñi amul daal ñu muñ xam ni noonu la examen ñi am ñu leen di félicité euh, di ñaan mu ñu loo ko vraiment je crois que loolu daal mooy di ëpp solo. enseignants yi vraiment jàpp nañ ci parce que ak Covid bi nga xam ni ren vraiment dal na ci dañ leen di félicité jàngale nañ heure bu nekk. jàppale nañ élèves yi jàppale école bi jàppale parents d'élèves yi ñoom itam mention spéciale ci enseignants yi ak corps administratif bi vraiment ñëpp jàpp nañ ci képp koo xam ne kii yaa ngi ci école bi rek xam kontaan nañ ci yow jàpp nañ ci ba yàlla def ñu terminer ak jàmm ñu bëgg fi tam li nga xam li mooy li des fi tam ñu terminer ko ak jàmm vraiment am résultat yu baax yoo xam ne yu mucc ayib ba nga xam ne fi toll fàllu galas encore ca kanam rek